la la au Sourire, nous sommes dans ce village de Dender, dans la région de Thiès, pour procéder à l'inauguration officielle de ce puits-là que vous avez bien voulu offrir à ce village. Comme vous pouvez le voir, les travaux euh, ont bien, sont bien terminés. On a atteint l'eau. Donc les villageois ont commencé à utiliser cette eau-là pour pouvoir y boire, euh, faire la cuisine, se laver, faire les ablutions, faire les ibadats. di leen nuyu waa dëkk bi Dender def naa bi mooy ñaareel bi yoon ñu ñëw fi euh, tey moom dañoo ñëw pour inaugurer teen bi loolu moom vraiment sant yàlla la daal ndax mënoon nañ fi tàmbali teen bi mais du am ndox comme ni ñuy dalee ci yeneen dëkk yi. jubluwaay def fi teen bi nag du dara dul rek mu nekk loo xam ne vraiment daf leen yombal dund bi teen nekk seen boori kër nga xam ne doo ndox ay kilomètres yu bëri pour yu ndox euh, ñu ko fi def tamit beneen association la boo xam ne nekkuñu fii Sénégal. mais ñu am yéene lañ maanaam ñu bëgg defal population bi lañ maanaam ñu bëgg a dimbale seen i doomu aadama lañ association la boo xam ne vraiment ay jàmbaar lañ. ndax ñoo xam ne def nañ fi teen te duñ fi mës a ñëw ñëw naan loolu la muy tekki mooy yàlla moom moo tax ñoom ñu def ko. teen bii ngeen ñu fi may ñoo ngi koy ñaanal yàlla di leen ñaanal yàlla teen bi yàlla na suñu wërsëg yéen ñi ko fi indi tam yàlla suñu borom yàlla na leen sàmm te lii ngeen di def fii yàlla na ko yàlla suñu borom bi tam di ko yokk waaw ñaanal lañ leen kontaan nañ ci lool ci teen bi coono yëpp wàññeeku suñuy coono wàññeeku kontaan nañ bu baax waaw lii bi muy laata pare ñu ngi doon roote fii ci biir xur wi fofu lañ doon xey di gontu di nga ci gis jigen bi nga xamne bi sa day jóg xaju gudd di dem di roti te do am ndox kon nak li buñ ko indilé sante yalla bu baax la waaw sante yalla bu baax ñu di leen ñaanal di leen sante bu baax ndax ñun yag nañ fi te am bugu ndox te amuñu ko ñi robinet yi exi wuñu fi dañ do roti ba fee sa xurwa di indi fi légui nak ñu am teen bi ñu koy rafetlu bu baax baax ñi ko fi samp yi ñu ngi leen di ñaanal barke bi yal na yokku na barke bi jëm kanam sant nañ leen bu baax gërëm leen ndax dindi ngeen ñu ci coono dañ doon sonn di rootaani te fi mu nekk ni am nañ ndox sant yalla dañuy root parce que ñu daay fess sangu ba set doon nañu toog ñaari fan duñu sangu waaye léegi moom dañuy sangu ba set gis nga ni ma mel leer nañ <laughs> di leen sant di leen gërëm eh, ndax lii ngeen fi def tey eh, wax dëgg fa yàlla eh, yàlla doo nga tax ngeen def ko fi ndax dëkk moom ni doomu aadama ci wàllu boppam fi mu doon ni ndox a ko lal kon ko lay dimbale ci ndox ku ne da nga war a sant yàlla sant borom ndax nag fi mu toll nii teen bi moom fi newul même jigéen dañuy wax coono waaye jigéen bu sonnee rek ñaare góor dana ca jiitu puisque bu téyee góor rek fi mu toll nii door a doon coono jigéen yéen ñi nga xamne nak nag indi fi teen yi eh, yal na yàlla fay ñëpp eh, ñi nga xamne ne ko joxe ba mu jaar ci en bu fa ñu ko joxe fim mu toll nii fekke wuñu ko waye fa yeen ñi ko orienté ba indi ko suñu dekk ba indi ko suñu tank fim mu toll ndax même bu doon robinet sax da ngay fay waye li do fay eh, xam nga kon ngir yalla du passé di yal na leen yàlla fay yalla doon ku taxaw ñëpp. Donc, Alhamdulillah, nous remercions Allah qui nous a permis d'atteindre ce projet-là. Parce que des fois, on peut creuser au puits, et qu'on ne touche pas à l'eau. Allah nous a permis pour ce projet-là d'atteindre l'eau. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah ta'ala à travers ce puits-là qu'Allah vous bénisse tous les membres de votre association qui vous permettent, alhamdoulilah, de réaliser d'autres projets pour venir en aide les populations qui en ont besoin et les populations qui sont démunies. Ces villages-là qui parcourent souvent quelques kilomètres pour aller chercher de l'eau, surtout pour les femmes. Donc vous, Inch'Allah, vous êtes conscient de ces difficultés-là, malgré que vous ne connaissez pas ces villages, malgré que vous ne connaissez pas ces populations, mais Alhamdulillah, vous avez pris de votre bien pour aider ces gens-là. Allah soit en ta'ala, et qui est un de toutes choses, qu'Allah soit en ta'ala vous récompense à la hauteur de vos dons. Qu'Allah permette, permette votre association, Inch'Allah, d'être plus performante dans l'avenir aussi, de faire d'autres projets uniquement, Inch'Allah, pour ces populations. Rendez-vous, Inch'Allah, pour d'autres projets. Donc je pense que c'est le sixième pour le mois, pour l'année 2020. Donc nous espérons, Inch'Allah, qu'on pourra faire d'autres projets ensemble. uniquement pour la face d'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.